ñaareelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi genn ngoon yéesu ak ay taalibeem dugg gaal ngir jàll dex gi yéesu daldi nelaw ci saasa ngelaw lu mag ak duus yu mag ñëw yëngal gaal ga taalibe yi ragal gaal gi suux ñu yee yeesu ne ko borom bi musal nu nu ngi dee noonu yéesu sant ngelaw li ak diw yi ñu dal ñu dal koy déggal ndox mi ne tekk ku nekk naan nit kii mooy kan ngelaw li ak duus yi sax dañu koy déggal léegi ma laaj leen ñeent bi yéesu di nelaw ci gaal gi te taalibe yi yee ko lan la def yéesu sant na ngelaw li ak duus yi ñu dal